mel na ni keroog ba may jur sama doom ja di ko tuddee Seydina Serigne Saliou am naa ci mbégte moo xam ne wuutiwul ak keroog ba may tudd sama doom waaw bég naa ci loolu ndax ñun amuñu ku dul Serigne Saliou mm-hmm. Serigne Saliou lépp mm-hmm. kon bu yàlla dogalee gan gi ñëw ñu delloo ko tur wi loolu mbégte la kontaan la ferte la waaw yàlla na jàmm yàgg ci loolu loolu leer nañu ngir bis lu mu xat-xat lu mu métti métti ak lu mbir mënti demee Omaro danaan day ñëw ne ku sopp Serigne Saliou loxo. dëgg la ba ñëpp jug ci kaw. dëgg la Omaro doog a taañaañal wóyale mm-hmm. li muy wóyale. Mm-hmm. waaye Omaro. Mm-hmm. tey jii carrière Balla Gaye. yow boo ko doon ñaanal tey ci Serigne Saliou bi loo ko ciy fasaale. waaw li ma ko ciy fasaale rek mooy euh, mu bañ a xaar. loolu làmb ji waxtaan rek moom barki démb. ma naa ko Omar. mu ne ma ne ko bul xaar. parce que yow doo kuy yàgg ci làmb. yow missionnaire nga ci làmb. da ñëw am loo war da nga ñëw am loo war a prouver da nga ñëw am loo war a def dem bàyyi say rek ñu def nga li nga war a def wax nga li nga war a wax prouver nga li nga war a prouver li la dese maintien la ubbi bunt yi may sa rakk yu ñëw ñoom Sa Thiès booy Boy Niang yeneen xale yi defal li ngay def te dem diggante Modou Lo Ama Baldé waaw ku nekk am na nu mu demee te yow xaw war nga cee xam lu leer dëgg la ndax mm-hmm. Balla Gaye 2 sa doomu ndey la te léppi mm-hmm. Ama Baldé la dëgg la Ama mooy te xel mm-hmm. wala mooy te xel mais non non combat moom fi mu toll moom euh, ni ma ko gisee bataille psychologique la combat boobu taxaw na bu yàgg sotti na bu yàgg day am ndax làmb duñ dor la te làmb bu ñoree dañ ko yàq waaye yii ñuy def yëpp di wiiri wiiri jaari ndaare euh, mbir la moo xam ne bataille psychologique képp la ak gën a waajal sa bopp gën a jekku sa bopp waaye moom làmb jooju moom ku yorub xel war ngaa na nelaw te xam ne kenn mënu leen tere jàkkaarloo lu munul ñàkk la faw day am. Mm-hmm. Omaro mu mel ni sa digganteeg Balla Gaye ñëpp xam nañ ko. dafa mel ni ragal féete day xañ a wërsëg. ah déedéet moo ko ñëpp xam nañ ko Balla Gaye moom àddina juróom-ñaar xam nañ ne suma xarit la nëbb ma ku yàlla bind. moom ku yàlla bind nëbb ma la ñëpp ko xam sama diggante moom mm-hmm. suma nit la suma doomu yaay la suma xarit la suma lépp la suma mbokkum taalibe la. bu dul làmb comme sa frère non làmb boolewunu Balla Gaye boo amee làmb sa ma gis boo amee làmb du fi ñëw su ma ma parce que làmb doxul suma diggante moom damay bàyyi ba mu làmb ba bare ba fii féex ba ñëpp dem ma ñëw ñu wax lu ñuy wax def la def dem fu ñu dem. Balla Gaye bu amee combat noo koy dundee. waaw mbégte bëre nekk ci digg géew bi. waaw mais mbégte ak xol mu sedd ak xel mu dal dina am mbégte dina am xol mu sedd dina am xel mu dal ndax xam naa sama waa ji waaw xam naa sama waa ji xam naa ko ci ni ko ñëpp xamee waaye xam naa ko it xamuk biir ban combat moo la gën a neex ci combat bi nga xamante ne ndam boobu am na ko mu sedd sa xol lool. yëpp. yëpp mais a sedd. yëpp gën a sedd sama xol su ma la waxee dëgg rek. Hmm. Omar fu mu amee ndam bëgg naa dëgg yàlla dëgg yàlla. léegi kon ci kanam mën nañ xaar Serigne Sarr. ñu ñëw fekk la ci xew Balla Gaye 2 dafa mel ni ngeen bokk géejawaay tey nga ñëw fii ci xew mi loo yëg. waaw li ñu yëg mooy mbégte rek comme bisu bisu mbégte la tey faaw ñu yëg mbégte waaw di. ñaanal suñu grand xama doom ji nga xamante ne moo gane yàlla na dund ba am ndey ak baay doon magum lislaam dem ba jëriñ ko daal si kàttanu suñu borom. ci làmb bi saison bi tëjee ba léegi promoteurs yi ñu ngi lay contacter wala. waa ñi ngi ñuy contacter nag mais affaire yi moom moo sotteeku quoi mais ñi ngi wax nag ñi ngi wax. mais ñi ngi taaxeerlu tamit ah di déglu xaj na lu jot rek yomb daal. sa combat kan nga bëgg ci man maa ngi taaxeerlu rek maa ngi déglu rek bu gisee loo xam ne jaar na logique na lu bëre. est-ce que sa bi nga def ba perte ko nga yaakaar lan moo la ñàkk loo sa combat. non man gisuma erreur sax man li ma gis mooy ñëw naa def li ma war a def xam nga aussi gis na ni affaire yi demee tamit nekkul loo xamante ne nii lu ñu sa luñ sañoon. adversaire bi day taxaw li ñu bëgg comme xas-xas la woon ñu bëre comme tamit amateurs yi supporters yi ñëpp ñi ngi doon xaar combat bu neex pour man warul woon demee noonu daal. Hmm. ñu waroon bëri làmb joo xam ne ñëpp a si bég képp ko daggoon ci sa xol dina amul kenn kontaan ah. naa. kon yow jàpp nga ni combat bi da ngaa bëggoon ñëw xeex bëre. waaw boo xoolee loolu moom yëkkatuwul man dama bëggoon ñëw xeex bëri man loolu moom yëkkatuwul xaj na moom moo ñëw ba si biir xam nga indi leneen daal. est-ce que nga yaakaar du stratégie boobu noonu la war mbër war a mën a comporter ci combat ku ci mel ni yow nga wane fit. ba ñëpp xam ne am nga fit combat jot nga bëree stratégie ba génn ci nga yaakaar booy bawal li mu def du noonu la war a def waaw xam nga day am combat yoo xam ne day laaj loolu stratégie pour nga génn si mais dama am combat yoo xamante ne it dafa laaj nga ñëw taxaw xam nga li ma la wax nii dëggal sa bopp bëre comme ay xale lan nekkul loo xamante ne dañuy ñëw war a taxaw jëmale gannaaw suba dañoo war a ñëw xam rek daf yoo fi xale bëre jóge fa dem xool leneen ñu ngi lay jaajëfal gis nañ keroog émission bi nga def ak Ouzin ci Wassare Lamb muy ziar mbër loo yëg loolu waaw sant rek parce que affaire yi na foo xamante ne léegi ñëppay ñëppay bégee ah xam nga moo tax booy wax na ngay wax loo xam aussi balaa ngaa wax daal faaw nga xalaat quoi lu rafet soo ko wax ndax boo waxee ni ñi ñi ngi dégg xam ñi ngi sant bu baax xam nga di leen ñaanal yéen it gën a jëm ci kanam parce que interview boobu jaar na yoon xam nga waaw ñëpp a siy wax daal mooy loolu mais nag yàlla baax na yàlla yàlla def jàmm rek. gaa jëf jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen kii ma taxawal bokk na ci xale yi nga xamante ne révélation yu daaw ak daaw jóg ñoo ci génn muy Pape Thiam numéro 2. Pape Thiam ñoo ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Malick di wax baatu auzu billaahi mina seytaani rajiim maa ngi lay nuyu bu baax baax di rafetlu fii moom fi moom fekk fii muy suñu tudd grand Balla Gaye muy ku baax xam nga di tudd doomam mooy loolu daal jaajëf. Euh, ñaata combat nga bëre arène man dix combat dix combat la am neuf Papa Yade moo ma daan kan ak kan nga daan daan bëri nga mu naan la doo fi buñ ko tënk rek xam nga ndax maa daan tigo maa daan caatu yof rek loolu rek palmarès la quoi. Uh-huh. lu lu waral sa komba ren xaar xale yu ndaw yi ñu ko bëri ba léegi déggaguñu sa lu waral waaw lu waral man mun naa la du si man quoi mais gars yi ñuy contacter.